sama ndënd summi nga sa yére nekk ma ñu bëri dama lay duma yow may duma maa la gën a pare songu ma ñu waaw mais asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum waa Pikine tey maa ngi fii Pikine ku xool ci rond ma taxaw xam ne maa ngi taxaw rond-point Dominique nga xam ne lépp Pikine fii la tey Ama Baldé di am ay ndogu yu mu fiy organisé tey ñu ñëw dëttal leen nga dëttal leen organisation bi fii am ak Ama Baldé la moo nekk initiative am xool mbokki mbër yi fi ñëw hmm? xool ay dëkkandoom xool ay nawleem ngeen xool lépp loo xam ne ni tey xew na Pikine lépp loo xamante ne ni Ama Baldé tey jëf na ko pikin tey duñu leen ci bàyyil dara nga ànd ak seen télévision Zarak Vision ah nga xam ne mooy première télé bi daw YouTube fii ci Sénégal ah Leuz nekk suñu directeur tey ñu ànd suñu équipe technique hmm? tey maa ngi Pikine mais maa ngi dëkku làmb mais maa ngi dëkku jàmm maa ngi dëkku famille li am Pikine amul fenn li xew pikin xewul fen te am Baldé bu jëlee initiative am jël xaalisam organiser ci ay ndogu ne day jàppale ñëw di doole ne Pikine tey créer loo xam ne ni tey innovation la même bu fi jugee tey tey nekkatu fi tey amatul jotu pikin tey hmm? dem ba jëm mag tey ay doomam ak ay sëtam ay sëtaatam dañ ko mën a tal dañ ko mën a toppatoo ma ànd ak sama réalisateur Leuz damay damay wax ne da ngay teg sa baaraam foofu ma wan leen ambiance bi wan leen mbana yi fi ne wan leen kafe wan leen tante bi wan leen organisation bi wan leen bi après ma àndaat ak yéen wéy sama waxtaan ak yéen tey dara du la leer ci yi fii ah wax naa leen ko xaayaan boo feet ndax roog seen bayaaree jam ndax séeréer teg leen seen baaraam ma ñëwaat Pikine ah ñu ngi si rond point Dominique bi ànd ak waa Pikine ànd école de lutte Fallaye Balde ànd ay sëti Fallaye ànd ay doomi Fallaye tey bu ngeen xoolee maa ngi taxaw ak Bayla Demba Balde ah ak ñi nga xamante ne yàgg nañ dëkk Pikine lii ay ndogu la c'est la première fois mu am Pikine lii nee naa leen du Ama Balde du Bayla du ëmma seen du kenn mais Pikine la parce que bu ngeen gisee suñu yaay nday jaw sooba léegi mi ngi tafaanaar mi ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fekk ci kanam bi nga xam ñeneen ak ñeneen ci dugal seen loxo bay laa lu mel ni c'est la première fois mu am Pikine lan moo ko waral ak lan moo waral lii ak toog waxtaan bu mel nii fan ngeen ko jëlee ak lan seen inspiration ba nga indi lu mel nii mu innovation boo ne bu bees tàkk la c'est la la waaw onze billah ñu ngi julli ci yonent bi di baalu gaa yëpp nag ak parce que li yombul c'est la première fois mo am sak melni mel nañ def sax di joxe ay suukar akhlu bu ne man ay akhlu la yor ma yor ñaari akhlu ama yëkkati ñaari saaku suukar jox ma muy man muy sama morom Pikine ba ginnaaw raay way ama def na lepp ñu ne wa de pourquoi pas duñu def nangam ama wacce fi gilem wacce fi juromi nak wacce fi ginaar amul leneen lu fi desul kam ñoo firwi sa amna fi tey damay wax dara ci Pikine nit mun nga yor sa kër nga moom ko nga yor sa néeg nga moom ko nga yor sa waañ nga moom ko waaye Pikine kenn mënu koo moom barki sëñ Saaliw Pikine kenn mënu ko moom parce que Pikine benn bopp la kenn munu koo xaar ñaar barki sëñ Saaliw ama tamit lu ma gën a neex ci moom maanaam taalibe la ñun boo gisee ñuy bàyyi suñu lépp taalibe bi mu doon moo tax ñu jàpp Ama Baldé barki sëñ Saaliw di doon taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou kooku daal lu koy ñaanal jëriñ gudd fan nag wér booy bi nekk roi de arènes ñun suñu xool yëpp loolu moo loolu moo si nekk boo xoolee Pikine waa yëpp fu ama jug ñu jug lu mu taxaw ñu taxaw si ama tey jii buy nekkee si leneen sax ñun ñu ngi si loolu ñun mu ama ñooñu moom sax man moom laa yow man maay paye man maay premier ndongo moom sax sama jëwriñ la sax moom Ama barki sëñ Saliou man sama jëwriñ la Ama Balde lu ma nee ne Bayla nii la sax maa ngi fa. mais lan mooy sa diggante ak Ama Balde ba mu jël organisation presse lu bari lu bari lu bari te gis nañ ci café gis nañ fa ñoom Malaw Seras gis nañ fa ñoom Fallaye ah gis fi ku ne mais dañoo jël organisation bi 100 pour 100 yëpp te ko solo lan mooy sa secret ak Ama Balde. waa noo am naa ay mag ñu fi nekk mais lii ngay gis nii ndogu li amul maanaam boo déggee ñu ne la Pikine ndogu Pikine la du ay Bayla la. wala wala muy muy suñu gànnaay yi wala nangam dañoo jël lépp muy xale ñëpp ko bokk lépp ko bokk ñëpp xam li ma la lii nii moom man damaa yéemu sax tey parce que man sama xel bi yëpp mu ngi si wàññi sëñ Abdou Karim barke sëñ Fallou parce que ñun wàññi sëñ Abdou Karim lañ nekk mais lii c'est la première fois tey ñu gis ko waaw lii benn mbër laa ko gis mu def ko mais ñoo ngi koy sant bu baax a baax muy Ama ñoo ngi koy sant bu baax a baax waaw. ban annonce ngay lancé waa Pikine coow yi fi amoon ah fi kenn paase hmm, tey ñu xëy lu mel ni tey Ama bale def ko tey lan ngay sànni waa Pikine ak lan ngay conseil Ama ak lan ngay wax sax kàddu gu mujj. waaw mais yàlla bi mu yaatal asamaan yi kenn juddul yàlla bi mu yaatal asamaan bi kenn juddul yàlla bi muy defal asamaan gi yaatal ko fii ku jël sa xol bi xatal ko yow la. yaa ngi dégg mais ñun nekk nañu benn ñun kenn mënuñoo xaajale ñun benn lañ barki seen jëw wa cent pour cent bi dëgg la ñun deretu gor mooy daw suñu yaram xamuñu ay dem ñi wala yooyu noonu ñun dañoo yàgg ama mag grand frère ñoo daan ànd muy paate dafa yàgg waaw loolu dafa yàgg kii laa njëkk a sax mbapat demba mi boobu ama sax nekkul mbër boobu ama ngi toll ni ko xale xale bi taxaw barke sëñ Saaliw waaw lii dafa yàgg daal lii kóllëre bu yàgg la mbër du ay nii wala nangam ñu koy jéggaane wala yooyu lii dafa yàgg waaw dëkkandoo bi dafa yàgg waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah mbokku spectateur yi dégg ngeen kàddu yi nga xam ni, mom la fi bay la jot a nga xam ay yu lu la ah wa parce que olof Ndiaye nee tamit ah and bu yàgg bu nekk dëgg la hmm, ñu and xalé ba mag changé wuñu soppeeku ñu lolu dëgg la mais ki ma taxawal ni Demba Balde la du ma leen wax lan la bok ak Ama Balde dama koy laaj ak Demba ma ngi lay laaj. cheikh nan jawrin naxam nak waaw ñu ngi nuyu ñëpp waat ñëpp sax. kon niñ ko waxee woon suba rek kii sunu mag la maanaam tënk na kàddu gi yëpp amaana mënoon nañ bañ a sax waat ci wax ji mais geste bu naaj daal lañ ko tuddee lii mooy geste bu rafet jël sunu doole ak doole Baye Fall yëpp dajaloo ko mën nañ dañ si jiital tur aw mais mooy lépp daal nit ñi la daal gars yi si jàpp. kon mm-hmm. ñoom aw du dem. saa am tamit ñoom mooy loolu quoi kon donc ñu ngi leen di sant kenn ku nekk parce que ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay kenn ku nekk bàyyi nga say yite ñi jigéen ñeeg góor ñeeg mag ak kenn ku nekk daal bàyyi nga sa yite ñëw jàpp ci bis yi mu nekk lu ñu lu torop affaire nag am na tàmbali mais amul fu muy am parce que lii mooy première édition bi te ñaan nañ yàlla mu saawan baawan ñu ngi tàllal loxo kilifa yëpp parce que affaire yi doo doomu banlieue la doomu Pikine la doomu Géejawaay la doomu Caare la doomu Yëmbal la ama ama ñëpp la ama àdduna la commencé nañ ko pigine parce que pigine nan am amuñu loolul pigine fi nañ koy commencé fi nañ jëkëm ñaan yalla nak mu nekk affaire bu ko jik xam lu ci sentu muy lu baax lepp yalla may ko ak mbooloo mu julli ci weeru koor ñi ngi jéggalu ñëpp ñu ngi jégalu quartier bi xam nga parce que tam bo ñëw yaatal nañ ibul nañu seen bund surtout maire quartier bi xam nga def nañ lepp dal ñu leen di sant ñu leen di gëreem li ñu dañ ci am digal digal diñ ci am moy ku tedd gi Cheikh Abdou Karim mbake mu señ fallu mo ñu jox digal pour ñu def ko ñu rek def ko ni dafa nekk loo xam ne dañ cee am ndigal moo tax ñu def ko waaw kon mooy loolu quoi ñuy masawu ñëpp di nuyu ñëpp nag di ñaan yàlla prochaine fois xam mu gën a yaatu gars yi gën see jàpp mooy loolu quoi. mais Demba Baldé dañoo seetlu ko ren. Hmm? semaine passée da ngeen jël ay camion hmm, lu toll si ñaari camion ñu ñett chargé ko ay suukar ba mu fees hmm, wër Pikine wër ginnaaw raay dem Caaroy géej dem géejawaay lan mooy seen secret lan la. suñu secret tey ngeen ñëwaat defaat lu mel ni lan la. voilà suñu secret du dara du booloo bokk ndey ak baay ku ne xam ne doomu Pikine dañoo booloo bokk ndey ak baay mais terewul boo génnee boo nee Pikine rek am ñoo xam dañ lay moytu. ñu bëgg loolu noonu jóge fi. moo la waral ñu jël suñu am-am wër ëxlu café yi parce que ëxlu yi nga gis bu ko xeeb parce que am na ñoo xamante ni si na nii ndogoo chaque jour ay néew di doole nan dafa ñu ko pour pour ko dafa ñu ko pour wane wala pour dara dañ ko def pour dimbali néew di doole yi. loolu waral ama jël ay propres moyens génnee ko daf ko ci. semaine bële passé wër na ëpp café bu nekk jox leen ko ni ku nekk saako suukar semaine bii ñu dolli ko waat def ay ndogu pour jox ko jaamu yàlla yi loolu dong si jublu c'est boobu dong la c'est bu naaj boobu dong moo ci jubal mais dara pour taalibe yi barkeelu xam nga ñu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu gis seen bopp xam nga dafa rafet quoi am ngay def soo génnee am na yëpp topp sa ginnaaw laaj na benn temps boo xamante ni moom nga sa bopp nga bëggal leen ci ci sa doole ak sa xam-xam mais du leneen loolu kase cheikh bi siyaar naa la. ñu ngi doon jaar ñu tey. mu ngi nii rek. sant yàlla bu baax. lan moo waral seen jotaayu tay bi hmm? gis seen papa yi seen nijaay yi seen maam yi ñëpp taxawu leen te Pikine yëpp nangu nag lan la. xam loolu Ama Baldé ko waral parce que Ama day nit koo xam ni daa nangoo doon Baye Fall ah, moom mag ak xale ñëpp la yemale fu mu romb day kaf ree xam nga yaa gën a xam jox ñëpp cër daal quoi looloo tax su amee bis warul tuuti. parce que nit nu rek noonu la lay fay moom moo liggéey lool looloo tax ñëpp génn di sant Ama nag di sant waa Pikine ñëpp parce que gis nañ seen taxawaay si Ama Baldé ñu ngi leen di sant yëpp ñun waa Mafia Thiaw si xiir ñu ngi sant Pikine yëpp di sant nag Thierno Ndong amuñu fayam mention spéciale lañ koy jox moom jàpp na si parce que soo gisee lii yëpp ñu def ko moo am na ci cër parce que jàppale nañu su bu baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm naka lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal lu mu yàlla na ko ko yàlla defal yàlla na nekk roi des arènes ñun loolu lañ koy ñaanal ñaanal luñ ko leneen loolu rek lañ soxla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Leuz Leuz ba léegi tey ah ba léegi ñu ngi wéyal suñu waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ay nitu Pikine lañ ñi nga xamante ne nii ay dooley Pikine lañ hmm? kii ma fekkoon nii sama ndeyjoor kii mooy Ivra Ivra borom port hmm? kii mooy seul transitaire bi ànd ak Ama Balde hmm? guddi ak bëccëg bu mbër mi amee combat mi ngi këram. bu mbër mi amul combat mi ngi këram bu mbër mi amee moom yëgul bu mbër mi amul moom yëgul kii day kenn koo xam ne man dama seetlu ay gestam seetlu ay faayam naxari deretam nag bëggul ko ko yab bëggul kuy tooñ du ànd ak kuy tooñ loolu tax duggul ci kenn ñëwul ci kenn Ibra bi du ma ko présenté su ma waxee ci moom loolu nit ñi dinañ xam ñi xam Ibra dinañ xam Ibra semaine passée dañoo gis Ama Balde jël ay camion def ci ay su suukar joxe ko ci dëkk bi tey ngeen ñëwaat jël lii ah rey fi six nag rey fi gëlëm togg fi 40 man Ibra la mooy seen secret yéen waa kër Ama Baldé lan la. waaw ñu ngi leen nuyu di bi du dara lu war a def la di ko def lu war a def di ko def parce que nit soo nekkee si gox soo jógee ñëpp jóg weeru koor mun nañ ne weeru congé la. nit ñi dañ si profité di si def lu baax di si jaamu yàlla moom mu génne si dooleem génne si ñaqam wër ay fansam wër ay supporteram ñi nga xam ne ñoo yor ay axlu café mu ñëw yëkkati ay suukar jox parce que loolu moo ko war parce que ñooñu ñooy sonn si moom loolu mooy li ko war deuxièmement bi lii nga gis ama ku sëriñam sëñ Abdou Karim su nee bés moom nee ko defal joxe ko ndigal ne ko defal ay berne nga berne mënu lu dul mu ray boppam def lépp li nga xam ne am na ko amu ko mu sotti ko si parce que ndigal lay wéyee secret bi loolu dong la te mu nekk nit koo xam te ku neex a la ku neex a nekkal la moo tax saa yu jógee rek dëgg bi ñëpp jóg ànd ak moom. mais Ibra sa diggante ak Ama Baldé lan la. Ama du sama mbër sama rakk la Ama sama rakk la du sama mbër yaa ngi comprendre ñoo juddandoo ñoo yarandoo. ñoo màgget noo ñoo bokk benn koñ kon kooku du sama mbër sama rakk la awa su nekkoon footballeur dañuy ànd su nekkoon ministre dañuy ànd lu munti woon nekk si kër àdduna dañuy ànd mu baax mu bon dañuy ànd su nekkoon dara dañuy ànd parce que ñun ñoo juddandoo yaranoo noo amuñu loo xamante ne dañ naan kii sama mbër kii du sama mbër sama rakk la man benn mbër laa am si àdduna muy Balla Gaye numéro 2 su bàyyi bëri ma bàyyi seetaan lam li ma wax ñëpp xam nañ zil moo nekkoon sama mbër seen kër parce que sama mag la woon sam papa la woon benn mbër laa dese si AF bii nii mooy Balla Gaye numéro 2 su bàyyi bëri ma bàyyi seetaan laam su am bàyyi bëri ma bàyyi seetaan laam mais tey dañoo seetlu aussi tamit Ama Baldé day tëj këram day bàyyi njëlam ñëw nekk sa kër guddi ñëw nekk sa kër bëccëg Ama Baldé ba nit la je crois que ne war nga mën a xam Ama war nga mën a wax àdduna kan mooy Ama mooy li ma la wax xam nga yaa wax day tëj këram tëj lépp ñëw nekk man man tamit damay tëj sama kër tëj lépp dem nekk si këram mooy duñu ay mbër ay xarit lañ ay gaañ lañ xam nga gaañ dafa am buñ jaawale kii kii mooy mbëram gaañ dafa am sama gaañ la sama rakk la maa magam demo ñooy ay gaañ moom sama rakk ku nekk am na féete nit ku nekk am nga féete moom ni mu féete du tay de xëy na tey lañ gis muy bëre nii ba mu gën a nekk booy damay ñëw mu yor nafa ma ne ko lebal ma 300 wala lebal ma 200 mu lebal ma ba ay 1500 2000 mu lebal benn jour ma yore ko 100 francs mu ne bàyyi naa laa lebal loolu dafa yàgg ay mu nekk booy loolu dafa yàgg du tey ay ama ama lii rek nag la mun a am de nii rek ama gars yi naan ama nii première avance bi ñu ko njëkk a jox muy bëre si làmm arki alxuraan karim laso la jënd laso seen kër laso la jënd lasu seen kër defaraat fauteuil yi première avance buñ njëkk a jox mu demoon football yi ñëw ñu joxe avance bi biir saal lasu la jën lasu seen buntu kër dina am leneen lu dul lii de barki alxuraanu karim dina am leneen lu dul lii parce que man xam naa ko lan nga koy ñaanal gudd fan ak wér dong laa koy ñaanal yàlla musal ko si cat leneen lépp day ñëw loolu dong laa koy ñaanal bëri ko si mbatal puus mu teg puus mu mu dem barki alxuraanu karim far force wala force doole mbaam neexee yàlla ak yonent bi bërgo si mbartal mu dem puusul mu dem la la wax lolo e cadeau Ibra lolo e cadeau Ibra ah momit, muy ku bax muy ku yag and ak Ama ah naa ko sa jabar ku bax la ku meuna togu la ku meuna joxe lek la Assalamualaikum oh, leus ba legui li ma wax sank ba mom la indi watal tay ah nee lu musta am bu amee dina jaaxal ñu bari hmm? nee naa Ama moo gën a tuuti Pikine moo mujjee juddu Pikine mais ndigal bi ko sëriñam jox tey ku amoon xel bu ñaaw ci moom sa xel war naa dal tey nee naa leen semaine passée mu jël ñaari camion def ko ay suukar jëlul ay xarit tayam ay nit yi démbam la parce que nee naa Ama Baldé ñi muy àndal duñ ay xaritam ay magam lañ ay rakam lañ parce que booy la dégg a ndigal si Abdou Karim jox ko ndigal mais Pikine bëri nay koñ Ama am na koñ bu mu juddoo mais dafa wane ne Pikine benn la te dara mënu koo xar ñaar muy Ama muy keneen muy keneen muy keneen tey initiative yi ñun dañ koy rafetlu ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jeune Pikine te tey lu mel ni c'est la première fois mu am hmm? dama lay wax juróom-benn nag yi suur rek ñaari million taxaw na ah ñëw taxaw ah mu teg 40 mbana hmm? teg 500 ginaar je crois que ne loolu ku ko def rek sa gox bëgg nga sa gox. yaa ngi bëggee sa gox tey balaa maa jox Ama Baldé kaddu gi dama koy jox kaddu gi koo xam ne Ose hmm, Eze Alaaji Mbay nga xam ne moo ak Ama Baldé defe naa ne dërëm la woon ah jamono mburu quinze ah p cinq Alaaji Mbay sa diggante Ama Baldé laa bëgg ñu waxtaan ci parce que olof Ndiaye dane lu yàgg lu ne dëgg la te tey dépassé ngeen diggante xarit ak xarit dépassé ngeen diggante mag ak sa diggante ak Ama lan la te defe naa ne boo seedee ci Ama Baldé àdduna dinañ la déglu àdduna dinañ la gëm parce que ko àndal démb tey war nga mën a wax ci moom la mooy sa diggante ak Ama Baldé ginnaaw bi nga nuyoowee. waaw Mamour ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi lii moom bettuñu lii bettuñu te Ama dina def yeneen affaire yu dul yii bu soobee yàlla ci yoonu Serigne Touba dina ci def yeneen affaire yu parce que Ama phénomène la phénomène booy xool phénomène dëgg moom la waaw parce que. Euh, liñ naan ñu ci bëri ci ñu ci bëri ci ay nit ñu ci bëri ci métier bi ñu nekk dinañ jékki ñu pousser leen ci. mais ki nga xamante ne bi amee deux ans bi mu amee trois ans lañ koy xool xam ni kii lii la loolu xam naa ni moom xam na li may wax loolu métier la muy ci lii mu nekk muy làmb waaw di sant nag Serigne Abdou Karim bu baax muy sunu la di wax waa Pikine yëpp nañ ko jàppale parce que borom xol bu yaatu la li butéel bi def rek la saañ bi di xeen billaay wallaay taalaay kii ko ko seedeel ku dul ñun ñi muy nekkal li ngay seedee quatrième position la nekk wala cinquième ñun ñoo la mën a wax ci moom te liñ lay wax ci moom suñu xol lañ ko tibbee parce que xam nañ ni mooy dëgg barki Cheerafal dina def yeneen business yoo xamante ne nii Sénégal dañ teg seen bët parce que kii rek laa gis ah kuy ànd ak ay nit barki Cheerafal boo leen bu maak Ama wala Kapiyaas ak Ama wala Malick Ngingue ak Ama wala Maalo ak Ama Fallaay ku ci àndoon ci Mamour yet Mamour yi yëkkati jur téeméeri jox ko Ama barki sëñ bi Ama mën bañ a xam liñ ko jox. ça dépend ci yow yow mi mu àndal yaay mën a yaa yaay ngor yaay gore rek ne ko ama ah, lii laa lii la ma waaj jox wala kii lii la ma jox mais yow moom bu dee moom rek ngay xaar pour mu pour nga xam liñ ko jox nu mu toll ci jéem ci wërsëg doo ko xam parce que gor la nit ku baax la nit ku bëgg mbok la nit ku bañ lu ñaaw la wax parce que temps yii passé jël nañ ko fi interview barki démb mu ne leen li ma gën a bañ sama àdduna mooy ko te nit ku bëgg ku bëggul ku bëggul tàqalikoo rek nit ku baax nga mbokk dafa garaaw yàlla bi mu wàccee mbokk dafa tàggu dafa yonent bi daf ne daf mbokk daf ne ko yàlla yaa ngi wàccee ci àdduna waaye boo ma wàccee nit ñi mën nañ maa sàgganee yàlla ne ko dinaa la wàccee yow mbokk ba ku la sàgganee ma ma ma jëflante moom loolu dafa garaaw kii nit ku baax la billaay wallaay taalaay mais tey initiative bi mu def nii lan nga ko siy ñaanal ak tey lan nga yokk lan nga koy wax mu yokk ak lan nga koy tere lan la waaw kii amuñu luñ koy tere billaay wallaay taalaay amuñu luñ koy tere xanaa rek di ko ñaanal di ko ñaanal euh, di wax ni ci fukki fan yu njëkk yi ci koor gi génn nañ ko fukki fan yu topp génn nañ ko fukki fan yu mujj yi ci lañ nekk nii Kapyaas xam na li may wax kon ñu ngi nekk ci fukki fan yi nga xamante ne ci la yàlla wàccee saaru laylatul xadar dañ koy booleeg saar boobu ñaanal ko ci moom waaw di wax ni inna anzalnaahu fii laylatul xadar وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من في شهر تنزل الملائكة وروحه فيها بسم ربك من كل هم سلام هي حتى مزل الفجر كي يالا كو يالا ديفال جام ci barke Leylatul Qadar waaw. waaw ba tey ah ba tey ba tey maa ngi nii taxaw ak ñi nga xamante ne nii tey buñ taxawee ak Ama Baldé kenn du na déedéet ndax nee naa jëmm ji rek la Ama Baldé bindu ci ci yaramam ah te kon kooku bu xamul Ama kenn du xam Ama parce que olof ñi ne nit boo koy laaj. bu ko laaj jàmm da ngay nga laaj ko ay mbokkam yan mbokkam nga koy laaj mbokku du deret mbokk dëkkandoo la parce que dëkkandoo gu yàgg day indi mbokk te je crois que ne Ama mu àndeek ay nitam ni mu àndeek ay mbokkam ni mu àndeek ay ami d'enfance kon Ama Baldé am nag nit ku doon am na lu muy dundee ay nitam loo xam ne secret la dañ koy laaj ay nitam lan la Malo Seras maa ngi lay nuyu. maa lay fay di sant bu baax di la gërëm di la dalal bu baax waaw di la wax dalal jaamu siyaar naa la bu wér a wér a wér a wér a wér waaw di waajal nag bu baax waaw ndog yi moom gars yi comme ñëpp a ngi si Baye Fall yëpp ngi si nag di waajal bu baax di wax suñu rakk yi li mu def nii dañ koy ñaanal rek si kàttanu yàlla ak yonent bi bu déwénee yàlla mën lu ko waaw si kàttan bu wér yàlla na lépp lu mu mën ren rek bu déwénee yàlla mën lu ko raw ndax ay lu baax daal ay tànk kanam la amul tànk ginnaaw te li muy def nii ngëneel la si weer bu sell la waaw weer bu suñu borom joxe nag kon lépp loo si def rek yaakaar naa yokkute nga siy gis waaw doo see mën gis wàññi tew fi mu bëgg daal moo xam bëgg a àgg bëgg fa teg tànkam yàlla na ko suñu borom àggalee te li muy def ni nag ah yàlla nekk ay tànk yu bëree bëri bëri bañ a nekk tànk ginnaaw li mu def ren yàlla bu déwénee mu def lu ko raw xam nga ren juróom la rey bu déwénee yàlla rey fukk si kàttanu yàlla ak yonent bi àdduna bi yëpp jàppale ko si waaw na dem ba doon stade bi nag ne gars yi di ko woote si stade beeg yëpp ñëw di berneel gars yi di jox ñuy lekk waaw ndax taalibe moom boo jotee ndigal ndigal jëfe rek la tudd bàyyi këram jox na ko ndigal kon jëfé rek la war tuddu dañu dañuy and ak mom ci lepp te li mu nekk ni lepp lañ ci and ak mom lepp lo xam dugal na ci lo xam rek dañ ci and ak mom bu mu jeex di ñaanal tawfiq bu bare bare bare di ñaanal wër ak wër la ak ñimu andal ñepp képp kuy mbokam képp kuy xaritam képp ku dëkk bir pekin lépp ñeneen may ñaanal wër ak wër la di ko wax ni li mu def ni yalla bu mu yam yalla ko nay ati ati yalla don ay 100 ans yalla nek 111 ans mu dund ko ci kàttanu yalla ak yonent bi mais maalaw seeraas ba légui duma la dog nee Ama balé tawam Hmm? tuddee ko Souleymane tuddee ko Demba hmm? yow la ko tuddee je crois que ne mën nga am témoignage bu tuuti rek boo def ci moom ama ban nit la ban façon nit la waaw am moom nu mu mel am ni mu mel rek noonu looloo nekk si xool bi boo ko xoolee nii rek da nga koy gis waaw loolu leneen la suñu diggante moom weesu nañ sax ay waxuma lay tuddanteeg doom waaw ñoo bokk ndey ak baay famille lañ ko famille rek moo wóor dañu ay famille lañu barke Seexul Xadim du ay tuddee doom tuddee doom dépassé nañ ko ah mooy maalaw maalaw mooy alaaji mbay mooy kabiyaas mooy falaay de mooy saafandu mafia la boo xam ni dañoo suudew yàlla boole leen ñu nokk benn bañ nekkee xale ba léegi ñu doon ànd doon tout tànk di ànd di jublu si benn affaire yàlla di leen si suturaal waaw kon ñoom loolu la ñu am loolu mooy seen doole booloo boobu mooy seen doole mooy seen dëgër laa di leen di ñaan yàlla yàlla si yàlla gën a téye gën a yokk booloo bi gën a téye bi képp koo gisee am yéene boo xam ne ah sa morom bi yéene bi nga am sa bopp nga am sa moroom yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex yàlla booloo bi daal yàgg naa daal mu gën a dëggu xam ne lii rek mooy dëgg lii mooy lépp li mooy àdduna ndax àdduna am amul lu ñun am amu kenn ku dul ñun lépp lu mu dugg si ba ngoon xëy na kon ñoo ngi si kon ñun lépp lu ñu dugg si ba ngoon war moom da siy nekk kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla li mu jëm nii yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw di ko ñaanal nag li ñuy wëri nii muy roi de yàlla na ko yàlla jox bu xol bu sedd guy si kàttanu yàlla ak yonent bi yàlla mën ko am na ko yàlla na ko defal si barke weeru koor bi waaw eh, maanaam dama lay bàyyi nga dem mais balaa ngaa dem xoolal saar bi la gën a neex nga ñaanal ci Ama Baldé nga tari ko may ko mbokk sénégalais yi non boo ko ni <laughs> waaw lës ba léegi ah ba léegi ba léegi nee naa la àddina amul solo aduna amul solo ah aduna amul solo te dëkk bu rafet dafa baax. Hmm? mais Ama siyaar naa la. waaw warmaal nañ la. Baye Fall bi naka la. sant sëñ waa bu baax baax di sant yàlla bu baax a baax di santaat suñu borom di sant yàlla di julli suñu bi di gërëm waa Pikine di baalu àq tamit waa pikin ak samay mbok samay am di jàmm képp ko bëgg Ama rek képp koo xam ne journée bi déplacé na na son na def sa yitte rek maa lay baalu àq bu baax a baax xam ne rafet rek lañ bëgg. te tamit ndigal la ñuy demee Baay Faal dañ na ndigal la ñuy demee ñu wéyee jëfee kon dañuy jëf rek dañuy jëf ba keroog ba keroog waa Pikine di kontaan ba keroog suñu mbokk Baay Faal di kontaan ak taalibe sëñ Ahmadou Bamba kontaan nañ bu baax a baax. mais Olof Ndiaye dana lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole ama li yëngu ci moom tey lan la lan moo ko yëngal. waa ndigal la rek. ndigal la parce que bu dee lu dem ba doon ndigalu sëñ Abdou Karim Mbacke kon moom moo yëngatu rek moo yëngatu rek yàlla nañ yàlla dafa jàmm lu ñu si bëgg yëpp yàlla na yàlla na suñu borom li muy teraanga ku ñëw tey teraanga ju fi def yëpp ñu bokk ko ak ñoom ba pare avec xol bu rafet ba pare ñoom ñëpp kontaan ku ñëw yàlla na la yàlla indi si jàmm boo dem tamit yàlla na la yàlla yóbbu si jàmm ñu fekkee ko tal ko ñu gër kaa mun di gër kaa def di gërëm nag samay àndandoo yi comme ça ku su mel ne El Hadj Mbaye dina comprendre na lépp lu mun a wax si man lu baax man mun naa ko wax si moom parce que tamit même lu ne xale fekkee naa ba pare même lu ma nekk nekk xale jox na ma boppam moo loolu xam na booy xool ni ku la dàq aar bi bu dee xeex bu dee bëre dàqu ma ko waaye mu jël léppam jox ma ko damay ñaan yàlla fay bu may fay yëpp si lu baax tey yàlla na ma ko fay Alaaji Mbay lépp lu mu yàlla na ma ko yàlla defal markam bii mu jóg muy osé euh, aisé yàlla na ko suñu borom am defal barke yàlla na ko suñu borom defal barke di ko ñaan sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na ko yàlla defal barke si waaw si marque bi comprendre sant nañ yàlla bu baax baax tamit kontaan naa samay am di jaam ku su mel ni Ndiaw ku su mel ni Mortala xam na ku su mel ni euh, Cheikh Ndeye Diaw ku su mel ni ñoom bëcc xam na ñoom Kabia ñoom ñëpp maa gërëm xam na ñoom Dangle ku su mel ni sama grand Mor Gueye xam na Baara Mamou Dia xam na ku mel ni Abdou Diouf yëpp mafia maa leen sant bu baax baax di leen gërëm di ñaan yàlla na jàmm yàgg Pikine mais Ama Baldé ba léegi ñu seetlu ñu seetlu ci weeru koor gi semaine passée da nga def ñaari camion def ci ay suukar hmm? war pikin wër say am du jàmm wër say mbokk wër say xarit wër ñi nga xam ne say soppe lañ dañ lay dégg te gis ñu la ah, di fa wàcce ay suukar Ama Baldé loolu tey nga ñëwaat def lii lan la. waaw dañuy sant yàlla xam nga tey lu mu munti am rek fii lañ am Pikine tamit lu ñu mun munti am tamit doomu aadama lañ te yàlla tamit dafa fonk doomu aadama comprendre mënuñu dañuy jéem buñ mënoon. barki Serigne Abdou Karim Mbacké Pikine bi yëpp foofu koñ nekk rek nañ fa dem bëggal leen waaye yàlla tamit mooy dogal yàlla nañu yàlla kàttanal bañ mun loolu di ko def tamit am nañ ci yéene bu baax a baax parce que tamit amuñu lu dul Pikine mhm. mais tey ba léegi Ama Baldé dafa def benn geste boo xam ne def na ko mais seetlu ko da nga bàyyi sa kër bàyyi sa koñ romb ko ay koñ koñ ñëw ba fii nga xamante ne nii ku fi ñëw dina xam ne yaa ngi biir Pikine fii ku fi ñëw dina xam ne ne fii la am Baldé dëkk ku fi ñëw dina xam ne fii la Eumeu Sène dëkk ku fi ñëw dina xam ne nii leader yi nga xam ne ñi ngi taxaw di bàkkoo Pikine fii lañ dëkk nga indi ñëw ba fii jël lépp jébbal ko sa yaay Ndey lan la Ama Baldé lan la ñan ñoo ne ci ginnaaw Ama Baldé fuur la xam na fuur la parce que tamit nekkul dañoo war a ñëw sama kër ndogu parce que booy xool da booba suukar bi mënoon naa toog sama kër gars yi di ñëw ma jox leen ko waaye dama dem dugg si biir nit ñi jox leen ko tey fii fuur euh, la Pikine bi yëpp a ma ñëw def ko pour yëpp nekkul que ñoom Ama lañ koy def parce que utuma si loolu dama ut ne Pikine nañ si sant seen bopp tamit na si àdduna sant seen bopp tamit xam na tey waa Parcelles nañ jaar fii waa Géeja waaye nañ fi jaar fii ñëpp a jaar kon nagu ñëpp ñëw ñu lekk ñu xéwalandoo yàlla def si barke yàlla def si jàmm di gërëm nag ñëpp man bu gërëm samay àndandoo laay gërëm samay xarit samay lépp man nañ ma jiital rek mun naa la ñoom ñoo dox lépp loolu ñoom luñ luñ toog xalaat ba gis ni lii buñ ko defee dafa rafet te def nañ ko yàlla na ko suñ yàlla na suñ borom fay kontaan nañ bu baax kontaan naa bu baax a baax franchement kontaan na. Ama est-ce yi jàppale nañ ci bés bi. waaw jàppal nañ bu baax a baax. ku ci mel ni kan. waaw ku ci mel ni sama mag Thierno Ndom Ba Thierno Ndom maa ngi koy gërëm bu baax a baax jàpp na si bu baax a baax ku ci mel ni sama mag si Dia directeur poste jàpp na si ku ci mel ni Pam Ndom jàpp na si ku ci mel ni Timbo jàpp na si mun naa la wax ñëpp jàpp nañ si mun naa la Pikine moom franchement seetaan nañ ma ñëpp ñëpp ñëpp sama mbokku mbër yi xam na ñëpp jàpp na si di ñaan yàlla yàlla jàmm yàgg. Euh, lan ngay ñaanal waa Pikine ci sa yéene lan ngay ñaanal waa àdduna parce que tey foog naa ne ku jël sa ñax rek di ko bokk ak nit ñi kooku bu ko yàlla mayoon buntu àjjana defe naa ne kon àdduna bi kenn du dugg safara te tey Ama Baldé geste bi nga def geste bu rafet la dan lay ñaanal yàlla nga gën a siy déwén yàlla na la nga boon bu roi des arènes parce que tey jëf bu rafet rek moo solo di maye. télé yu wër la loolu du maye di joxe nit ñi di ngawte ngawte sa tur bi loolu du joxe joxe joxe te yàlla tax moo gën parce que man li may wax foruma ko laaxal la ma wax ba sag bur bu ma xëyee damay joxe dépassé Ama Baldé du ma ko jox waaye nag wax sa mbaaxu waay du wàññi sa dara parce que Ama Baldé boo nekkoon nit ku bon si Abdou Karim du yëkkati appartement jox la ne la Ama caabi jaa ngi heure boo ñëwee bul xool jëwluñ bul xaar Baay Faal demal nga dugg fa kon am na jëf joo fay jëf ba tey mu jox la ndigal bii tey Ama Baldé sa kàddu lan la ak lan ngay lan ngay wax lan ngay ñaan sant yàlla bu baax a baax sant yàlla baax di ñaan bu buñ si am yëpp ah yàlla nañ si fay yàlla nañu yàlla fay doomu aadama yëpp nekk si jàmm jullitu yàlla yëpp yàlla nañ nekk si jàmm bu ñu yàlla di fay yàlla na doomu aadama yëpp nekk si jàmm loolu mooy sama dernier kàddu sant naa yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg képp ko xam ni am na naqar yàlla na ko yàlla fajal képp koo xam ne am na jàngoro yàlla na la ko suñu borom fayal képp ku kontaan yàlla na la suñu borom yokk lay gën a kontaan parce que ànd na noonu la jërëjëf Serigne Touba di Leuz nee naa la tey fii Pikine dafa neex ah Pikine dafa neex dafa yaatu dafa ala dawme hmm? kii ma taxawal nii mooy Sidi Bia doomu nday Modou Ndiaye borom Espagne hmm? Sidi Bia balaa maa balaa balaa maa dara dama lay wax Sidi Bia tey la moo sa tànk fii tey waa sama tànk fii mooy maanaam champion bi dey sama xarit bëgguma di sama fan fans teg ci fu ma romb ne ma Sidi Bia man yow man maa la faanal sama bopp ba pare nag na ma damay def ndogu man sañoon nag loo jàppoon da nga koy bàyyi nga ñëw looloo waral tey ma ñëw fii fekk sama rakk sama xarit hmm. muy tey mu def lu mel nii lan ngay wax Sidi Bouya da nga naan der. waaw mais lii mais lii mooy solidarité lii boo ko gisee maanaam mooy solidarité ndax pikin dafa yaatu Grand Dakar yaatu Parcelles yaatu géej Guédiawaye yëpp yaatu te lii ñëpp ko war a def. lu mel nii ñëpp ko war a def def mu doon loo xam ne solidarité laa ko tuddee ñu bokk ndey ak baay xam ni adduna dara yàggul. te loo fi gis day geex te lii mu def ni dafa nice sedd suñu xol moo tax ñu bàyyi woon lépp ñoo wuy su ko par la force doole mbaam Modou Ndiaye nee na yaayar kàddam waaw Modou Ndiaye loo waaw kooku doomu day xarañ loolu loolu man mi maa ko wax <laughs> Sidi Bouya taxaj <laughs> waaw ba léegi dégg Sidi Bouya dégg Sidi Bouya bu mu wax mais kii kii kenn la kër Fallaye Balde bu nit ñi di wax sax da nga naan kii muuma bu nit ñi di def da nga naan kii muuma ndax ndax maandoom ndax kuulam sama xarit la sama nit la sama tippoo la 1 man man ki moy sama star man Amadou sama star ki moy sama star mais gaan Woi ngi lay siyaare oui ma ngi delloo siyaar bu wér a wér mais naka mbég mi wa ñi ngi sant bu baax taw feex sant bu wér a gay sant borom Touba bu baax tay sa dom day lim def ni tay yow ban zest nga ci xam dañ ci contane rek comme ni ci banlieue bi ñep contane parce que li mom lu rafet la di ko ñaanal jamm rek lim ci jublu mo xam lim ci bëgg mo xam yalla nako suñu borom defal ci barke Seydina Mohamed xale mom bu nekké xale nekk ndaw xam ma di def lu baax dang ko ci encourager rek waaw di ko ci ñaax mu am tànku kanam bañ am tànku ginnaaw waaw yeneen yi di ñëw mu waaw mu mën lu ëpp lii daal lu mën ren rek déwén mën lu ko ëpp vraiment ku baax la ku ñu bëgg la ku am suñu yërmande la tamit yàlla na ko yàlla jàppale jàppale ñun ñëpp waaw. mais tey je crois que ne bi lépp xam nga ko Ama ñaata nag la rey ñaata gëlëm la rey ñaata man na lañ teg ñaata ginaar fi ñëw. Ama Ama ñaari gëlëm la rey ak six nag ak cent ak ginaar waaw loolu daanu na fii quoi. ci kàttanu yàlla daal am nañ yaakaar bu baax ne lépp incha allahu dina jàll ci kàttanu yàlla yàlla nañ yàlla dolli jàmm dolli ñu sutura yàlla nañ yàlla mosal ci cat ak làmmiñ incha allah yàlla nangu koor gi ñu ñëpp ñu nekk si jàmm woor woori ci jàmm xam ku nekk dellu sa activité xam nga daal Pikinité la c'est la ñëpp ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw buñ kenn mënuñu yàqal dara luñ bëgg a def kenn duñu jaxase kenn la loolu rek moo ma des ak moom roi des arènes bu ko day jaar ni ma jaar ne nga topp sa yoonu bopp waaw ma jël sama yoonu bopp mu jël yoonu boppam ma fi yaaba ko ci bokkul xiir bi da lay daat waaw Leuz nee la gis nga Pikine Pikine chaque jour rek yàlla day wone yàlla day wone parce que lii nee naa kii Serigne Penda Ndiaye ngi nii hmm, yàqul dara ci dëkk bi hmm, tey bu wootee petit frère am ñëw Mame Balla di doomu Pikine di waaj làmb ju mag hmm, nga xam ne bi muy woo avant mo wa ko ñom sax dama ne Mamour lima bëgg nga xam ko moy lamb ji lepp ci loxol Ama balé la ko tek parce que sama mag la nit ku bax la nit kuy jappalé seenu Pikine la nit kuy nango sonu ci déretu Pikine la ma ko nak tay mam Balla nga ñëw ci bisu Ama balé la nga ci mëna wax. wa di nuyu Pikine bi yëpp di contane bu bax ndax li day ñaan yalla mu bañ fee gëj ndax yombul quoi doomu adamay fim tolni instant bi man la su way nga ñew taxaw leen jàppale leen pour ñu ndogo kon lool yombul ñukoy ñaal inshallah rabbi mu continuer gëna riche waaw contane nañ ci mom bu baaxa baax na ñun ay doomu pikin lañ ñom gëm-gëm bo xamante ne doomu bu def dara wara ci mo taxaw jàppale ko dolel ko te wax pikin yëpp lañ ko jàppale lool lañ wax ne ko pikin yëpp jàppale ndax borom baax la bu dara dañuy jàppale ci saal ci lu muñti doon dañuy jàppale kon loolu nekkul hasard bu nekkoon daa rëy tamit fi mu toll nii tamit ñun dañu am gëm-gëm boo xamante ni kon duñ ko faale waaye l'essentiel dafa wàcce boppam mel ni comme benn booy suñu kanam dañuy jàppale bu baax a baax a baax di kaf di ree lépp mu dina es kon wax Pikine nañ ko jàppale nañ ko taxaw jàppale ko loolu lañ gëm liñ gëm moo ñu téew ko ndax l'essentiel li yombul nga jël sa xaalis bëri gase ko ci lu mel nii pour jox doomu aadama ñu ndogu kon dafa nice ñuy wax ñëpp nañ ko jàppale Pikine nañ ko jàppale te incha allah rabbi yàlla doon Pikine yéeg kaw incha allah ñëpp doon benn yàlla jàmm yàgg daal incha allah nice na kontaan nañ ci moom. mooy loolu dafa doon dafa doon dafa doon dafa doon ku baax comprendre mun naa la wax mun naa la tey si télé laa nekk di wax comprendre dama yàgg am vision ne moom mooy sama mbër biir Pikine barke Serigne Touba loolu dafa yàgg xam na du ko ñaanal dafa am combat du ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal ndam du ko ñaanal waa Pikine yëpp jéem parce que tamit moom drapeau Pikine lay kii te buy dem combat yi saf sàpp lay def. na xam ne kii deretu Pikine mooy kii yàlla na ko yàlla defal ndam wóor na yàlla ak suñu ah, suñu groupe whatsapp bi gina suñu Baye Fall baa ngi ekoon xam na moom dafa ñëw dafa ñëw si ah, turu groupe mbër yi joxo jox kàddu moom mu wax mooy si turu ah, association lekk làmb la nekk waaw. Malaw tey tey Baye Fall siyaar naa la. delloo siyaar bu wér a wér. Baye Fall ekoon. tey lan nga indil sa gars yi lan nga wax si tey. waa xam nga doomu aadama moom liñ naan yëg-yëg la war di demee. ndax euh, lii yombul ndax lii ku ko xool xam ne jëfi maam Serap Fall la te ñun gëmuñu ko dul maam Serap Fall waaye jëmm jii nii dafa baax parce que dañoo bokk moom group man ma dëkkoon Pikine tamit mu nekk tout tànk xam nga wax dëgg ne yàlla bokkoon naa ci jëm ya nga xam ne bu ma ko ma saan romb danaan man nan laay def ba toll ni ekoon mii waaye tey ku ko xool xam ne yéeneem yàlla def na ko kon su meune tok fi ni def ay jëfi maam serafal Faal ak xewal ak sunu borom limu wax ci jël xewal jox ko doom aadama mom mu taxawé position bobu wax deug neex yalla kon dañ koy ñaanal ta xam ne mu def ni bés bu bés bi ñëwaaté lay xam mom lii mu def moy jëfi lan waaw kon dañ koy ñaanal yalla parce que yonent bi sax bañ koy sonal ci diiw day jaamu yalla dafa ne ba bu pare ana ana kër kan lay xewlo ñu ne ko dana dugg keur diiw xewlo mu ne bu len ma sonal koko ko gën fofu kon képp koo xam ne da ngay jël ñam di ko joxe déwén ngay xam lii mu liggéey lan la te defe naa lii ndigal la ci demee te ndigal caabi la bu yéesee du ubbi kon dañ koy ñaanal te yemale foofu kàddu gi tey wax jërëjëf way waaw waaw kàddu yi kàddu yi kàddu yi kàddu yi ay kon seede rafet na maam Balla ngi nii ñëw si bisu magam waaye ba léegi dañu leen di bàyyi rek ñoom ku ci nekk xam nga mbër yi gëj nañoo gisante ci koor lañ nekk te xam naa ne xiif di wax du leen arrangé ci kanam lës jëlama lii. ok waaw. waaw waaw mais lës nee naa àdduna saa woo xëy rek sunu borom day dogalu lay ndax buñ nee Ama moo woote ñu gis Alioune Seye numéro 2 nga xam ne champion la écurie Waalo hmm? te boo nee Waalo di nga ne ma say sëy si yàlla si di nga ne ndem si yàlla si Alioune say mi ne woon maa nga sa palmarès bi dama si boole sa xel dina dem ci Balla Gaye numéro ah, sa xel dina dem ci champion Mouhamed Ali sa xel dina dem ci Lac de Guiers ah muy doomi Géejawaay di doomi Gunaas tey Ama Baldé xewle ah Alioune Seye bàyyi yitteem ñëw ànd ak ay mbokkam ñëw ànd ak champion Lirou Diane nga xam ne barki démb la wàcc ci kaw kàddu gi Alioune Seye ngi lay nuyu. waa Cheikh bi maa lay fay maa lay bëggee di la ziar. di la Alioune li nga def raar na de. waaw ñun moom ñoo bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo rek muy Serigne Touba ak Cheikh Rafal moo loola war sunu teewaay ak mbokk gi ñoo xamante ni ñoo ko bokk leen li nga xam ne ñu ñoo ko bëgg muy làmb ji bu loolu weesoo rek sëñ Tuubaa ak Seex Faal moo tax ñu gën fee teew nag wax dëgg yàlla waaw waaw tegal foofu sa loxo damay jël suwaat ci yow Fallaye siyaar naa la dooli siyaar wéer maa ngi lay bëggee tey bu ngeen xewlee Alioune Seye ñëw tey yow lan ngay yëg waaw mbégte ak kontaan rek la ñuy am ndax li ñuy wax làmb moom du boole day du tàkkale dafa war a boole euh, làmb famille daal te ñun ñëpp benn lañ moo tax bu ñu xewalee ñoom ñu teew rek mbégte bu mag lañ ci am ak suñu mag liiru jaan tamit teew xam waa dekki làmb ñëpp teew tamit loolu feerte la su ñun waaw ñu ci kontaan trop trop trop hmm. bés tay bi mbëri fi ñëw ak yow lan ngay ñaanal waa Pikine lan ngay ñaanal mbëri lan ngay ñaanal Alioune Seye champion làmb war na koo dégg waaw di ko ñaanal carrière am rek suñu borom defal ko jàmm li mu ci séntu rek suñu borom defal ko ndax moom champion la te xol bee rafet Baye Fall la te Baye Fall moom buñ ko waxee rek moo loolu yaa mu gën waaw di la ñaanal jàmm di la ñaanal salaam di ko ñaanal euh, mbëri yëpp mbëri fi tey yëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm defal leen xeewal waaw lii nag nekk première euh, édition bi ñu ngi koy ñaan ama suñu borom defal ko mu nekk édition édition ndax sëñ Abdou Karim bu joxe ndigal rek dañ ci war a tooy xepp waaw tooy xepp lañ ciy def nii waaw. waaw mais dama lay bàyyi comme da nekk ci liggéey Baye Fall di la xaar te nga yor bi. naa la bàyyi nga dem ba bañ la féetee. maa ngi dem ca café ga. lay wax liiru liiru. waaw moo ngoog rek mooy moom mooy borom cand gi <laughs> liiru ca kaw. waaw mais ba léegi damay wéyal sama waxtaan damay wéyal sama waxtaan ak euh, Aline say hmm, mais Aline say Alioune Seye li nga def tey rëy na trop jóge Géejawaay hmm? ñëw Pikine ñëw ci xewu Ama Balde tey lan ngay wax ko quoi ak lan moo tax sa teewaay fii. waaw di am contentement rek wax dëgg yàlla di jaajëfalaat Ama Balde bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko kàttanal ndax li yombul am na ñoo xam ne yor nañ seen xéewal di ko def ci leneen ak leneen moom mu yor xéewalam attan koo def ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla bu wóor ba ngoon nga attan koo dogal loolu yëgu ci ne kenn xam ko ñu ngi koy ñaanal yàlla comme bi mooy première édition mu dem ba def ko di koy ay ay cent édition loolu lañ koy ñaanal yàlla suñu teewaay nag bokk gi ñu bokk mbër gi euh, loolu gën naa tax mais bokk gi ñu bokk sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafa tamit moo gën a waral sunu teewaay waaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci képp koo xam ne mbër teew nga fii rek di bëgg ci waa Pikine ak waa Guédiawaye yëpp di leen bëgg rafet na jërëjëf Lirou Diane nag nii le grand champion waalo hmm? ki def naa ne boy wax champion walo ba ñëw ci liru jaan da ngay taxaw liru defe naa moo yor kàddu ikiri waalo sabu walo yëngatoo boy wax saabu lamu yëngatoo moy wax liru jaan tay defe sarak mo xew la de waaw ma leen nuyu di leen sant di leen geureum ndax sama teway bi du neen neen ma fi ndax Ama balde, lii mu def da ko wara def te da ko merito champion la xalé la ta da nek ci yone tey jii lii mu def nii ay mag ñoo ko waroon a def tey mag ñooñu defuñu ko moom mi xale yàlla dimbali ko kattanal ko muy def lii kon nag dañ koo war a gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla musal ko ci cet at làmmeñ at saytaane ndax xale la tey jii lii mu def nii ay mag ñoo ko waroon def mag ñooñu defaguñu ko moom mi nekk xale ah nekk xale nekk champion waaw yàlla ko yàlla lafal cet musal ko ci seytaane at làmmeñ yàlla na téye roi des ci daray sëñ Fallou Mbacké xam nga ne lii mu def dafa rafet magum jëm mu wóor ba ngoon amul lu mu ndogoo man lu ma ci jaaxal ama yemul ci nag rek aman ah, gis naa ama yeew gileem ama takk na ginaar ama takk na pitax takk nay ginaar takk nay bëy takk nay xar kon nag lii sant yàlla la lii lan la wax premier édition yàlla nekk ay édition édition édition édition te yàlla musal ko ci cat at làmmeñ at saytaane ñun de suñu xol seet na man de xam naa ni benn affaire moo am ama suma ma rakk la man mbër yëpp su may xarit la ñëpp ma bëgg waaye ni moom ni ma jàppee a ah, yaakaar naa a ah ah, ah ah ah ah su ma koy wax sax damay bëgg a jooy. loolu bul jooy ndax barki Demba Ndiaye dama doon def ay cant mu def ma ñëw sagal ma sigil ma loolu dafa sedd suma ma xol su ma koy wax ma damay jooy yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na ko yàlla lafal cat ci dara sëñ Fallou Mbacké yàlla bu mu gis luy lore. yàlla na yoonam leer naññ naññ naññ am benn dara lu ko baal fa xasal maa ngi koy gërëm di ko sant waaye yéen ñi tam waa Pikine gis naa ni ngeen ko jàppee yàlla na leen yàlla suturaal yàlla na leen yàlla jàppale ngeen jëm ca kanam a kanam a kanam ah Pikine ca kanam ah yàlla na leen yàlla suturaal ama ca kanam ca kaw ca kaw ca kaw ok ba waaw ba tey ba tey doo dem liiru doo dem ah mais gannaaw bi siyaar naa la siyaar naa la bu wër gaay ma doguma la kii ba ma ko xamee du tey ndax kii dafa yàgg taxawal Pikine yàgg xeexal Pikine kii ba ma ko xamee du tey ki gis na fu xale pikin di beure ma gis ko ca wet ga dama ko xame tay nak yalla nako yalla jappale ko am ay rak da nga len di taxawu ko am rak da nga len taxaw da nga len jappale te gis na nim koy def wa yalla la yalla jappale way bu li mu wax moom dëgg la mom pikin mom bu amé lañ ci sonu taxaw ci gaan dafay ama ba muy beure mbapat dañ ci lon sonu bobu amul won sax ay nit bobu ay ñet ngay ñaar nit bu daanoon ma ko loon si bëre moro yóbbu ko ba seen kër bilaay jamonoy Paate Balde mag yi Balde ma mago Ama balde jamono yi muy baba di jël drapeau yi jamono jooju Ama xalé bu ndaw la ba mo lon tay yere yi ma yaay deug après su la di bëre baba ñukoy japp di and ak mom di and ak mom ba fii nii wala nit mom day fàlleku seen tu demb aduna amul solo nit fàlleku seen tu demb war ko ama legi ba koy Balla jof waaw waaw waaw mais leus leus ba tay amna na yo xamne amna ne yo xamne boko gisee da fay rafet torop hein amna na yo xamne boko gisee da fay rafet torop torop torop torop Na def na defe naa Zakura boo nee boo nee Balla Diouf da nga naan Fass ah te boo nee Fass ah ne Ndakaaru te tey Balla Diouf bu teewee fii rek am na image bu ñu mu bëree woon ak Ama Balde làmb ji jàll tey Ama Balde xewle Balla Diouf bàyyi ay yitteem bàyyi ay soxlaam te ku ne xam ne ne Balla Diouf responsable la kilifa la am na ay activités yu mu war a dox mais da ko fa bàyyi. ñëw teewal Ama Baldé ñëw Pikine Balla Diouf tey boo ñëwee pikin tey ci bis yu mel nii Ama Baldé organisé ko tey Balla Diouf lan nga ma mën a wax ak lan moo tax tey sa déplacement nga ñëw teewal Ama Baldé. waa benn bi mbégte mbégte bu rëy ñaareel ñaareel mbégte bi nag mooy dëkk pikin màggee Pikine nag màggee Pikine foo Pikine defee suma jeunesse yëpp Pikine yàlla def suma yaay moo dëkk Medina ma dem Medina mais Pikine laa màggee ko taaf tey ko jumsu ba laa doon fréquenté ah la c'est jeunesse donc suis que doomu Pikine que champion fait sama rak muy Ama am contentement bu mag ñew fi parce que nous yombul doon jeune nek ci quartier ñep fonko la nga respecté sa bop respecté sa quartier koor jot li am as New. ko di ko bokk ak doomu aadama yi koy fay Ama dañ ñun Sénégal champion la mais teewul làqul boppam kenn ku mu war a jox cër jox na la cër ñun ñëpp daf ñuy woo duñu wax suñu grand grand nii lu mu lu ñu xalaat dañ ko koy wax moo tax tey bu xewlee ñun ñëpp dañuy bàyyi suñu yëf ñëw jàpp ci parce que lii tamit weeru koor la te lii tuyaaba dañuy wut si tuyaaba ci Ama jërëjëf jërëjëf jërëjëf waa mais Leuz tey defe naa question yi ah jarul muy gudd Thierno Gadiaga digganteem ak Ama Baldé jarul ñu koy expliquer Thierno Gadiaga diganti mak wali jarul ñu expliqué Thierno Gadiaga tay sa téway fi lan la. waaw ah, sant yalla rek ñëw jappalé sama rak rek nak ah, li def mom moko liggéey dañ koy ñaanal yalla mu mën koy at yu bëree bëri bëree bëri nak mom yaru bi mu wane mo indi li nit ñi nit ñi kenn mu leena jënd mais yaru rek lañ mëna jëndé nit ñi diko ñaanal yalla nak bëgg mom moko xam yalla nako suñu borom may rakk ju baax la rakk ju neex andal la ñun nak duñ nekk fu ñàkk fayda nak ñun ñak ñu fayda waaw mom moñu won jëf joju mo tax ñu jëfé li bàyyi suñu yëpp ñëw fii te leneen lu mu xew ñu ne ci rek di ñaanal yalla li bëgg mom moko xam. yàlla geste bi wali Seck def lo ci wax. wa lool duma ci wax nak moom wali wali frère la wali bu ko defee da ko wara def bu ko deful da ko wara def lu mu wara def la rek la def waaw wali mi ngi koy def feneen ak feneen asuma ak fi nga xamni fii la ay maamam dëkk fii la maamam am sosoo du dëgg li mu fi war a def rek la fi war a def waaw ñun Pikine namuñu dara waaw yëg ñu rek moo am solo boo ñu yëgee rek ñu yëg la waaw waa li mu war a def rek la war a def waaw te ci la dëkk nag di def lu baax comme booy bi rek di la ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla musal si cat baleen fi nag ndax dañoo baax biir Pikine waaw ñun ñoom la ñuy waa waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko ñëpp incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf. waaw dañuy kontaan dañuy kontaan bu baax baa si si bi xam na nit matul nit munul ñun dafa am ñu nekk suñu ginnaaw comprendre di si ñaanal jàmm xam na suñu nit yu bëri xam na ku mel ni suñu ah, ah, suñu yaay Marème Faye fay da see jàpp bu baax a baax ku su mel ni Amadou saal xam na ñu jàpp si bu baax a baax di leen ñaanal taw féex xam na lu ma la wax di kontaan bu baax a baax si Pikine di kontaan média yu fi ñëw yëpp ñu fi ñëw ñëpp maa ngi sant xam na Zera Vision am ne maa ngi gërëm ñëpp waawal Walfadjri ñoom ñëpp maa leen gërëm sant naa yàlla bu baax a baax di kontaan di kontaan bu baax a baax di ñaan yàlla na yàgg yàlla nañ koy yàgg di ko feete am nañ ay action yu bëree bëri yoo xam ni dañ koy def ay action yu bëree bëri ñooñu si buñ jé jénn si li am na si yeneen nag yeneen ñuy dem parce que Pikine nañu ñor banlieue bi moo fi ñor di lancé waat naa leen fii tey muy ministre muy lépp muy waykat muy lépp ñëpp ñoo fi bokk yam muy xale yu ndaw yi muy ñëpp ñoom ñoom ñëpp fi bokk yam ku fi ñëw leen a jël na fi jël comprendre na sant naa bu baax a baax di bu baax di gërëm waa Seck jàpp na si bu baax a baax di ko ñaanal na ko yàlla defal jàmm xam na di gërëm Thierno Ndom ba di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp franchement kontaan naa ku lim juum maa bu baax a baax dañoo nekk si liggéey xam na kon yéen aw ma seen fay te ñaan loolu bëgg yéen a ko xam yàlla na ko suñu borom defal. waaw mais mais DJ Leuz ah DJ Leuz maa ngi nii ba léegi maa ngi nii ba léegi samay samay samay waxtaan maa ngi nii ba léegi samay waxtaan Ama Balde xewle Aliou maa na ñëw ah ah garant sunu garant ngi nii doxu mbedd mi ah balaa may wax Aliou Mané dara dama koy jox moom mu sànni ci kàddu ba pare ma doog a wax Aliou Mané ndax fii la dëkk du fi gan kii gan la fi garant bi ci loolu ak lan ngay bàyyil waa àdduna bi tey. waaw dañ la gis. dañuy sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad di baalu senegal yëpp ak di ñaanal ñëpp di gërëm nag waa Pikine yëpp ndax tey pikin moo aye mbokkum dayu Ama Balde maa ngi koy nuyu bu baax muy sunu grand di sunu xarit. man nak en tant que artiste tey bu sama xarit moko waral muy Ama jikoy Serigne sali Mbacké la yor mo bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg ndax tubab bi dafa né la simplicité est une belle correction bu ñu joggé fu sori ñëw lim ñu wan la rek tay it li mu wané nii tay exemplaire la waxuma mbeuri rek ci bép sénégalais ndax Serigne Saliou Mbacké bo gisé ni mu def Cheikh Béthio togg ñam joxé dong la tay mu def li mu def ray rey xabaan rey ay nag tëral fi ay xar bari def fi lu bari kon Ama Baldé kenn amul fayam ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg ci làmb ji yàlla ko sunu borom def ci barke Seydina Mohamed jërë ngeen jëf jaajëf. waaw mais DJ Leuz ba léegi maa ngi fi taxaw Pikine di wéyal sama waxtaan ak am di jàmm Ama Baldé ak ay dëkkandoo Ama Baldé ku si mel ni Aliou Mané hmm, nga xam ne mi ngi nii teew na tey ñu koy laaj teewaayam tey lan moo ko waral. waaw ginaaw bu ñu sante yàlla julus yonante bi sant suñu ñaan wajur di leen ñaanal yalla yalla yeureum leen xaaral leen aljana si àjjana fii daw si waaw suñu teewaay waaw teewaay teewaay Pikine la dal man sama teewaay teewaay Pikine la teewaay ginaaw raay la ndax ginaaw raay la dëkk mais Pikine sama lepp la ndax ñun Pikine lañ fu fa lañu yaro tay tey Ama Baldé bu le bu xewle tay tay mu na wax ak lu lamb senegal sax ñepp wara ñew waaw ginaaw waaw xeyna tamit dama joom tamit di balu ñepp ak tamit si wër koor gi na ma ñëpp baal ak si barke yonente bi waaw tey boo xoolee Falaay boo xoolee Malaw Seraay boo xoolee Abibulaay boo xoolee champion Pikine mbër yi ñëpp ñëw nañ mais tey affaire bi dafa nekk eh, eh, benn affaire boo xam ne affaire bu rafet boo xam ne tey lii mbër mbër yëpp si war a roy waaw ndax sant yàlla la ndax soo soo gisee lii lii lii mobilisation la daal pour boole la tey tey nga woor ba ba ba ngoon jot suñu borom def si yow feex ba Ama Baldé tey woote benn ndaje boo xam ne tey jo joxe joxe ñam la te loolu sant yàlla la. waaw te lool moom dañ ko koy ñaanal mu nekk ay at at si barke yonent bi ndax tey bu ko bu ko falaay falaay woote woon ñëppay ñëw su ma ko woote woon ñëppay ñëw kon lool sant yàlla la di ko ñaanal rek yàlla suñu borom yàlla suñu borom wéral cëram kattanal ko suñu rakk la suñu rakk la ndax moom moom daf ñëw bëgg ñu bëgg ko te loolu mooy ànd daal waaw mais booy bi moom zéro faute quoi man li ma gis zéro faute barke Seydina Mohamed waaw jërëjëf Aliou Mané nee na zéro saf zéro faute yi bu laay yaag leen de waaw yow kooku sama mag di sama seex nan lañ làmb boole hmm? sama rakk la sama mag la sama seex la bari sëñ Fallou ñu bare bare ñoo yaakaar na man sax si famille bi laa bokk mais lépp ama la ñu ngi koy ñaanal yàlla initiative bi mu def ñu ngi koy ñaanal tànk kanam waaw lépp lu mu bëgg si àdduna rek na ko yàlla na ko yàlla defaral mais ama teg nañu fu mu ñu war a teg moo tax bu wootee rek waxuma la mu woote sax mais bu ñu woowul sax dañuy ñëw moom sunu lépp la te Pikine dañ kaa bëgg lii lépp lépp lépp ndax ñu ñëw fi dañ fay ñëwee teewaayu Pikine teewaayu Ama Baldé lañ fi ñëwee ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko ruwaa lañ koy ñaanal waaw. te initiative bu mel ni bu ko waa Pikine amee Ama Baldé jiitu ci tey yow lan nga ciy wax. waaw mais moom daa doon xale rek mais tey amaana na ñeneen ñi si nekk ñeneen mbëri fi nekk dañoo ne si contrat ku si mel ni Eumeu Sène mais xam naa moom initiative bi mi ngi woon si moom mais ki nga ama xalaat na ko rek kon baax na dañ ko siy jàppale rek donc moom mi ngi dem bayam xalaat bii rek nañ ko ñaanal quoi yàlla defal ko jàmm waaw mais Jules Baldé gëj nañ la tamit hmm, depuis sa combat Coly Faye numéro 2 ba léegi gëj nañ la gis ci lan la nekk maa ngi préparé combat maa préparé combat lan préparé Brise de Mer laay bëral hmm. Brise de Mer laay bëral allah di ñaan yàlla may ma euh, est ce que pare nga Zarak Vision ñëw jël si la xool ci loo nekk waaw am problème ëppam hmm. problème sax maa leen invité ngay ñëw soobee yàlla waaw jaajëf Olof ñi taxawal nii ah du ma ko présenté ndax bu ngeen xoolee restaurant bii seen xel dina dem si mère Ndeye Diaw bu ñu nee mère Ndeye Diaw dañ naan Adja mère Ndeye mu sëñ Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacké ndax tey moom kenn la si Ama Baldé bu Ama bëree da koy jox dund bu Ama bëreewul da koy jox dënd ikiri bi amul kuy ñëw restaurant Ndeye Diaw taxaw di jënd mbër yi ànd ak Ama Baldé staff bi ànd ak Ama amul kenn kuy ñëw restaurant Ndeye Diaw di jënd restaurant Ndeye Diaw moo nekk rond point Dominique boo ñëw ba foo taxaw ne restaurant Ndeye Diaw dañ lay indi lan moo ko ko may baaxam ak yaatoom ak nekk ndey ji seexam ak mën a séddale xàmmeewul doomam xàmmeewul doomu jàmbur xaalisam da koy dugal ci néew di doole yi xaalisam da koy dugal ci jeunes Pikine yi nga xam ne nii pareeguñu parce que tey defe naa investir weesuwul sa restaurant nga jël ay jeunes Pikine jaxasee na la say doom bu ñu duggee ci restaurant bi mënuñoo xàmmee say doom ak ña fay liggéeyee defe naa loolu ku baax la ngay nit koo xam ne boo demee Touba lu saal bi rey rëy rëy rëy rëy si Abdou Karim balaa kenn daan wol leen ma soxna Ndeye mu ma recevoir ko ba pare loolu sak baax la loolu sag yaatu la di la ñaanal yàlla lépp loo yóotu sa àdduna yàlla la ko yàlla defal kaddu yi ñu lay wax ne du sunuy kaddu ay kaddu yoo xam ne Ama Baldé mun moo ñu ko wax pour ñëw ñu ñëw ko waaye dañ lay jël ndax bés bu toll nii bu Ama bàyyee ay mbokkam baay ay dëkkandoom ñëw ba si yow teg ko sa bundu jël togg yu jël waañ bi teg ko sa loxo je crois que sa diggante ak Ama Baldé diggante yaay ak doom la nekkatul diggante dëkkandoo ak dëkkandoo men day jox ñu ngi lay siyaare. yàlla yàlla boole yool bi di sant di leen gërëm di ñaanal yàlla suñ borom def leen may leen fan nu gudd gu ànd ak def li ngeen ngeen ay mag mag mu am lislaam li nga wax nag man yéen ñëpp maa leen jur maa leen jaboote baat bi nak dafa dee maa ngi koy jéglu baax a baax man man len man ta fay ndax jur len ba pare ngeen nek ci li ngeen nek di bëgg lu baax don talib serigne Touba don talib serigne fallu di yëngu ci lu baax rawatina lu melni lu melni tay ji togg joxe bernde ku xam tiyaba ji mu ama xalaat ko jot ci digal serigne Abdou Karim nyobok ak ñun ñun ñu ñoo ko mënta fay ñoo ko jukkal di ñaan nak suñu borom képp ku ci def sa ñak def ci sa alal ba nga def ci sa doole yalla lako ko suñ borom fulal suñ borom may len fanu guddu bu and ak wer ñun nak ñogi ni soxna nday jow mu pikin aw ma dudu pikin pikin lama ñor pikin la bëgg ñi di sama jabot ma jur ñep ñep daf ma yaay mon ma fay kenn di sant nak suñ dekkendo yi di sant yaay ama surtout ndax euh tagge gis amna jappal ci jiw lii moo ko liggéey ama macha allah yaayam am na yar am na teggin jar na doomam bàyyi na doomam ak ñepp ñuko bëgg ndax bu ne ko won deet kat li du am waaye yaayam ak kenn mënu ko fay cër bi ma jox ci ama nak ko dama koy ak yalla ndax ama sama xaritu dom la Cheikh Cheikh bëgg ko lool nak fi la ko tek ci bakkanam bi bolem kuy and ak ama ama la gëna sa jëm loolu mom saasu ama la di ñaanal nak pikin gi yëpp di ñaanal samay dekkando di ñaanal dëkkandoo yaay ama di ñaanal pikin ki yëpp bàyyuma kenn di sant nag ñi ko ci jàppale ñëpp génn golo gudd na waaye lu ci dal borom yëg ko ceen ndong lim ci def yëg naa lépp ndax lu defal xale yi ñoo wax ma ko di sant Pape Ndong mii di sant député yii Salamata Koria ak Diba Sène ndax Pikine Nord kat am na macha allah lu rëy ñaari député yi jàngaarloo leen yàlla may ñuy ay jigéen di nit ñu baax kon affaire bi ñun ñi la kon nak ñoo leen di ñaanal liñ ci def yalla na leen ko yalla fay mo ñoo fay suñu dëkk di ñaanal suñu mbër nak suñu doom ñepp bayuma Pikine du tayzan du amad sen du Boy nya du Ama baldemi ñoo leen jur ñu bokk Pikine ak mbëri Pikine yi ma xamul seen tur dama tuddu ñooñu soq ak maalaw seras bayuma kenn xalé ndaw yi di leen ñaanal maam Balla ndam rek roi des arènes bi yalla na dugg Pikine te yalla bu mu fi génnati yalla bu fi gawa genn di ñaanal géejawaay nak, ndax nak man amade ke, bala Gaye de sama dom bi sama xarit nak, xawma xawma ko ba ma dama ko ma sama bëggal sama bopp ba ma nekké xalé fas la dal supporter ndax bop dama bëgg fas bëgg tafage tafage kon nak mbër yëp lay ñaanal du ñu ay ennemi ay doomu nday lañ ko gis giri Bordeaux ak Balla li ñu def xam ni cuune mënu ko na ñëpp mel noonu bëri la ku ne yaay dimbali sa morom ñun duñ leen may xaalis yow dooleen may xaalis ñoom ñooy mayante xaaj ci seen biir nañ yéenante jàmm di defante jàmm di ñaan yàlla fanu gudd gu ànd ak wér ama nag moom dama ko wax dërëm dama ko bàyyeeg nag sëñ Fallou moo xëy rek bàyyam bëgg sëñ Fallou mu ñëw seey ci sëñ te xam nga ah sëñ Fallou nag ku jàq moom ngay woo sama mos moomu mais alal sëñ Fallou ku ko bëgg du ma ku ma xool ci yow di nga ma mere aw ma ku du sëñ Fallou te bëggul ku du sëñ Fallou yéen it li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal Zarak Vision ñu leen di ñaanal yàlla ca kaw ca kanam yàlla na ngeen dund ba mel ni télé yi mag yi ngeen fekk yam ak ñoom mbaa ngeen raw leen ndax kat télé yooyu ci lu baax rek la ne ci lu baax ci yàlla yonent bi sallaa salaam Serigne Touba maam El Hadj Malick maam Limaamu Laay Yoof Ndiassane ak ñëpp ku xewle ñu ne ca ba mu jeex ba programme yëpp kon yéen it noonu rek rangé wu. waaw Adja Ndeye Diaw dégg ngeen kàddu yu am solo yi mu fi bàyyi ah. moom mu ngi yor restaurant bu mag restaurant bi mi ngi nekk ci rond point Dominique. Sidy bu ba damay wéyal sama waxtaan ak samay am di jamm wa ba léegi ak ay am di jàmm Ama balde ma ngi taxaw ko xamna ni tay defena naa ah mooy bàjjeenu xale pikini góoru di jigéenu Sidy job di awa Ama di ivra Ibra hmm, di borom dekk bi di borom Pikine awa rek moy jigéen ba mu sens interdit awa moy ko xamna tay hmm, bu yengo Pikine yengo awa moy nit ko xamna tay loko ko waxal Pikine nga waxal boko laay laal nga Pikine nee tay ku bëgg jot Ama balde mënoo ko jot nga laal awa bo laal awa di ngam Ama awa siar na la maa ngi lay dolli ziar bu baax a baax. aw tey sa papa def na de. waaw sam papa defati na. parce que ci def la dëkk. dañ koy ñaana ndax chaque jour sam mi ngi ci mystique yi. ama mi ngi ci dépense yi mi ngi ci ordonnance yi barki dee mu njaay la jënd camion suukar joxe ko képp kuy Baay Faal jox na la tey mu defaat lii dañ koy ñaanal rek ci barki Seydina Muhammad lii muy def nda def ko ay ati ati ati at dama naan ko moom bu du woon mbër wàlliwu lay doon ndax barke Serigne Babacar jafe na ma koy sant nag bu gërëm at ñi nga xamante ne ñoo koy dooleel ku ci mel ne sam papa Alaaji Mbay sam papa Ifra sam papa Njaw sam papa Këbsa ku lim da ngay juum sam papa Kapiyaas ñoom ñëpp daal ku lim juum moo taala ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm seex Nday Jaw Omar Jaw kenn mënu am seen fay ah ama ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla yokk ama ku koy xaar yàlla boo xaar di man awa de li may ñaan chaque jour rek su ma yàlla bëggee ren na ma yàlla bàyyi ak yalla nama ma yàlla bàyyi ak ama ci barke sayidina Mohamed. xale bu fuu ci lo nek sant Serigne salew <laughs> di xag ni taalibe Serigne salew borom pigina ah. neena la xale carton pigine sa bo tege loxo japp nga ko boy wër ci euro Pikine boko jappé japp nga ko di xaa tay Ama Baldé lim def ni tay lan la. Ama Baldé moom amuñ jur di ko sant di ko wa parce que dafa nit ku gën nit ku bax don ku ñak kiñaan don ki nga Ama da njabote amaana amul lu ma amul amul amul lu ma koy di ko ñaanal yàlla na ko sëriñ saaliw li mu bëgg ci àdduna yàlla na ko sëriñ saaliw may li mu bëgg fi egg yàlla na fa yàlla suñu borom eggal ama yàlla na dañ naan yu xam nga Youssou Ndour jamono ji daa nekk euh, daa nekk ci jeune talent yi nga xamante mu xale dañ na ama dem ba raw si Ndour ci arène bi ama li ñaan ama man ama lu ma ko waxal parce que dafa nekk ñàkk ñaan ama ñëpp la yemale barki sëriñ saaliw billahi wallahi bu ma ko gisee avant demee ni ku ma xam ay téeméeri at te jariñu ma ko dara defalu ma ko dara barki moo tax combat am dañ ciy sonn fu ne ndax moo ko war barki sëriñ waaye li ma koy ñaan li mu bëgg ci àdduna yàlla may ko ko ci barki sëriñ sa ama fi mu bëgg a egg yàlla egg ko fa barki yonent bi ku ñàkk ki ñaan la ku baax la fi papaam papaam waroon féete dafaa toog féete parce que këram gee ko dem doo doo doo jooy leen waaw di nga añ di nga reer di nga ndékki di nga di nga toog di nga dund di nga loolu daal waaw dëgg de hmm tay ku xol li tay sa xol warna sedd tay bay Faal yi ak mourid yi ak doomu pigini tay ño xewle ha Ama balle tay neena affaire bi nekatul yow dong affaire bi tay moma toko hmm adina bax rek ci am solo wax sa mbax way di wañ sa mbax dara ha, wa ku tedd kaangi ni mo Serigne Touba ndax Serigne Touba bi mi julli ci geejgi bi muy julli ci géej pour dimbali ndongo la pour dimbali Sénégal la pour dimbali àdduna la te je crois que ne tey xoolal ma rëbb suteur yi ah xoolal ma ñii xoolal ma ñii ah Ama Baldé tey lebal nga Pikine loo xam ne ah bés bu ñu la ko fay yàlla def la roi des arènes Ama Baldé tey ah li mu xewle tey du lu ndaw dafa borom géejawaay a ah, ah Pulo gi nii Pulo namba den. loolu tamit nag waaye lépp jaamu gaay rek affaire rek affaire rek kontaan. nee naa la adduna bi Serigne Touba dafay am wàll Mame Serap Fall dafay am wàll tey ndax tey ku xool ñi tey bàyyi seen yitte ñëw fii taxaw Ama Baldé indi leen fi tey ah dañuy bàyyi rek ñu wax seen avis xalaat. wax ba digënté Baye Fall ak morom Baye faalam mais li dañuy ñaan yalla mu jëm sa kaw sa kanam rek xam nga lepp lu dem sëñ Tuuba la quoi boo xoolee ba ci biir te yaama gëna xam affaire démo la dañ ci gëna taxaw de gëna am doole léegi mafia bi ku ci bok ah dina la dal <laughs> malik ñaag ni malik ñaag ni bu transfer fou c'est la ancien champion ah di doomu ndey mo Diop lu yàgg deug la malik ñaay malik ñaay té je crois ne tay Baye faal gi yëngatu na talib señ Afia bi ah, yëngatu na deug la ndax parce que Ama doomu Pikine la quoi té ñun ay doomu Pikine lañ quoi te Ama borom baax la sama rakk la je xam nga comprendre bu ma waxee lépp lu ma lépp lu ma xew la rek non dina ma woo téléphone na ma Malick Ndiaye kat man man wax dëgg yàlla nag dama am bis bi quoi te man du ma def lu ma ne la samaay bàyyi sama lépp ñëw. noo defee yaa ah sax. non du ma defee yaa ah, bokkuma si defee yaa yi sax waaw fa demee li ma la daal nañu ko ñaanal rek yàlla baax na quoi ndax parce que lii moom yëpp yàlla la quoi ndax yëpp yàlla moom képp ku si moom ñëpp dana ko si fekk si wóor na maam Serap Fall billaay walaay lépp daal neex na lépp daal pikin la. waaw lépp yaa ko ci bokk. non xiir da lay dal déggoo li ma lay wax. bon. ak gars nam naa la. a laaj mooy mafia bi ku ñu bokk lu la bi di bi da lay caw. xiir bi. caw la lay def. mais mais tey tey lan ngeen yëg quoi tey Ama Baldé lii mu def nii ah. waaw dëgg la tey dañu yëg suñu bopp quoi parce que pikin moo aaye. Ama nekk suñu yaakaar. waaw ñu koy bëggee di ko ndamoo saa su ne nag. mais ñun géej teewal fi Balla Gaye teewal fi Sa Thiès teewal waa Guédiawaye yëpp Guédiawaye lañ dëkk mànga waa Guédiawaye a ngi nii Balla Gaye a ngi nii a waa Guédiawaye yëpp a ngi nii mhm. taxawal eh, eh, eh, sama cameraman a ah, ñu ñooy mafia caw sa xiir bi ah boo déggee a Baldé naan caw sa xiir caw sa xiir kii moo indi caw sa xiir mais ndaamali siyaar naa la maagal naa la de naka ah. nga nekk curuba lañ nekk rek yéen waa curuba waaw waa curuba mafia caw sa xiir waa curuba daftar réew waaw sële bu ndaw dong waaw sa kaw sa kanam booy ñaa mais tey ndogu li mu organisé nga wax tey a ah, ndogu li daal sant yàlla la mbégtey bégal la nag def ci lu baax rek hmm. waaw di si jaamu yàlla bye bye.